Merci Babacar, c'est Mor Mbaye. Je suis le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local en matière d'hydrocarbures au Sénégal. Euh, Qu'est-ce qui justifie, euh, disons, ce, ce euh, des, tests euh, d'étudiants, par rapport à des métiers mm. euh, promoteurs en fait, c'est initiative que j'ai prise rapport avec un promoteur sénégalais qui a mis en place euh, un institut, c'est l'African Aviation Incorporation, qui est un institut, une école euh, d'aéronautique et qui dispense des formations diplômantes aux, aux, aux jeunes. Euh, il est en partenariat avec euh, le, le, 3SFPT, donc il y a une participation de l'État du Sénégal, mais c'est lui le promoteur, c'est une école qu'il a euh, installée à Dakar. Il est en train maintenant de, de former des cohortes de jeunes dans les métiers de l'aéronautique. Il s'agit essentiellement d'une formation avec euh, trois volets. Il y a les, les, les, agents de vente, réservation et ticketing. Donc tout ce qui est personnel euh, qui, qui, qui, fait les réservations euh, dans, les, dans les agences de voyage, mais aussi qui s'occupe de tout ce qui est ticketing et tout ce qui est réservation de, de, de vol et tout ça, donc tous ces agents. Donc c'est une formation assez spécifique, diplômante, et qui n'existe pas encore au Sénégal. C'est la, la première école aujourd'hui au Sénégal qui fait ça. Il y a aussi une autre euh, euh, branche qui forme des agents de passage. C'est les personnels que vous voyez dans les aéroports et qui s'occupent de l'accueil des, des, passagers et qui les accompagnent dans tout leur séjour dans l'aéroport. C'est eux qui s'occupent de ça. Et enfin, il y a le troisième volet qui s'occupe de, de, la gestion des réclamations, parce qu'il y a énormément de réclamations, notamment les bagages perdus, les autres types de réclamations au niveau des aéroports. Les agents qui prennent en charge ces, ces préoccupations des, des, des voyageurs, c'est aussi le troisième volet. Donc, c'est trois formations spécifiques qui vont être dispensés à des, à jeunes Sénégalais. Et étant soir, naturellement, j'ai discuté avec le promoteur et je l'ai convaincu de commencer euh, à Thiès et donc de, de venir recruter ici. le euh, profil des candidats euh, Le profil de base, c'est le niveau bac. Il faut avoir un niveau bac avoir un bon niveau d'expression en langue et autres Et, mais ça peut aller au-delà. Parce que sur aujourd'hui, les candidats que nous avons reçus aujourd'hui qui approvisionnent, de, qui, qui, qui, voilà, qui sont autour de 200, nous avons énormément de diplômés qui ont déjà euh, le Master 2, d'autres qui ont la licence et d'autres qui ont des diplômes professionnels. Euh, niveau BTS et autres. Donc, Vous êtes à combien de candidats signalés euh, Actuellement, on a auditionné près de 150 et il y a un petit lot qui reste. Et l'idée, donc, c'est de les auditionner, de reprendre leur dossier. Après, il y aura tout un processus de, de, de sélection sur, sur dossier. Ils seront appelés et on, on, va créer un groupe WhatsApp pour échanger avec eux sur les questions qu'ils n'ont pas pu poser aujourd'hui, donc pour mettre en place. Mais euh, il faut, ce qu'il faut retenir, c'est que la formation va très rapidement démarrer. Et ce n'est pas que seulement une école de formation, il y a aussi à côté un bureau, euh, une agence d'intérim Parce que l'idée, c'est de former, mais également d'aider les jeunes à trouver de l'emploi. Aussi bien au Sénégal, au niveau des aéroports, nous savons que nous avons un aéroport déjà euh, de, de, de grand euh, niveau, avec d'autres aéroports euh, nationaux qui sont en train d'être construits, d'autres sont déjà réceptionnés. Mais donc, ce potentiel sénégalais n'est pas suffisant pour absorber beaucoup de, beaucoup des centaines et des centaines de jeunes. Donc, l'idée, c'est un peu de les former et de chercher à les placer euh, dans les pays, en tout cas pour tous les pays francophones, ils pourront aller travailler là-bas pour autant que les postes existent. Eh, mais justement, les initiatives euh, d'employabilité sont là, l'État est en train de faire euh, beaucoup de choses, les, jeunes n'ont pas accès à l'information. Est-ce que de telles initiatives pourraient mhm. entrer dans le même ordre d'idée Oui, bien sûr, bien sûr. Effectivement, la partie communication elle est extrêmement importante. C'est vrai, l'État est en train de faire énormément de choses pour l'employabilité des jeunes. Et pourtant, les structures communiquent. Bon, on me dit toujours qu'on ne communique pas assez, mais les structures sont en train de communiquer sur leur formation, sur leur potentiel. Le 3FPT aujourd'hui est en train de faire énormément de choses dans la formation des jeunes, dans leur capacitation. Nous également, dans le cadre du, du, contenu local au niveau du ministère du, pétrole et des, des, énergies, nous sommes en train également de développer beaucoup de, de programmes en rapport avec les compagnies pétrolières et leurs sous-traitants. On est en train de développer de, de, de programmes de formation pour capaciter les jeunes dans ces métiers-là. De jour, nous avons reçu dans nos locaux le président du comité national du contrôle local, qui est aussi Ousmane qui est Thiessois, <laughs> tout comme moi. Et il nous a fait donc l'honneur de, de, venir nous visiter au niveau du secrétariat technique. C'était l'occasion de lui présenter un peu ce qu'on a pu faire jusque-là, donc sur l'année parce que le contenu local, euh, devant faire la promotion de la préférence nationale dans les opérations, dans les activités pétrolières et gazières, euh, essentiellement autour des leviers qui sont, que sont euh, l'emploi des jeunes, donc des, des, jeunes sénégalais, et la sous-traitance des entreprises. Donc sur ces deux aspects, on a quand même pu euh, capitaliser un certain nombre de résultats en fin 2021 assez intéressants. On a pu identifier près de 3 860 emplois créés dans le secteur. Au niveau de la formation, qui est aussi un important pour, pour pouvoir travailler dans ce secteur-là, euh, on est autour de 55 000 heures de, de, de, de, formation dispensée à des jeunes Sénégalais par ces compagnies-là. Et la sous-traitance des entreprises également, on a pu euh, décompter près de 220 milliards de, de, de, de, de francs CFA d'argent gagné par des entreprises sénégalaises dans ces opérations. merci ñëwal ak si ci ci wala solo euh, li ñu fi daje. waaw Babacar jërëjëf euh, effectivement tey dañu daje fii di euh, jéem regrouper ay jeunes chercheurs d'emploi de xale yu am diplôme ak d'autres yoo xam ne sax xëy na pareeguñu seen i formation. pour ñëw indil leen benn opportunité bu ñu am dañu am suñu benn partenaire boo xam ne dañu waxtaan ak moom boo xam ne day yëngu ci wàllu formation ci métier yi aéroport li ñuy wax dafa métier aéronautique alors am ci benn ñaari fànn la sax mais benn bi nga xam ne moo ñu gën a intéressé tey mooy formation métier de base yi mooy agent yi ngeen di gis ci biir aéroport yi ñuy teeru voyageurs yi di jël en charge voyageurs yi ba euh, seen séjour ci aéroport bi jeex Euh, am na ci également d'autres yoo xam ni ñooy yore agence de voyage yi ñooy jaay billets ci agence de voyage def réservation yi dans euh, les avions pour bu kenn bëggee tukki mais également am na beneen aspect mooy par exemple ñi nga xam ne am nañu ay jooytu ab tukkikat boo xam ne tukki nga ci benn compagnie am ci loo naqari sa bagage wula la leneen réclamation yi nga war a def ñu war koo jël gérer ko ba delloo la ci sa ci ci sa droit loolu aussi beneen fànn la ci formation yi alors benn promoteur la donc bu ubbi benn école à Dakar et c'est une première parce que école bu mel noonu amu fi amagu fi et donc war a former ay ndaw yu bëree bari mais du yem ci former leen leen di former pour ñu am un diplôme d'état parce que formation ci diplôme d'état lay débouché bu pare it ñi nga xam ne mën na leen a placer ci aéroport yi nga xam ne ñi ngi Sénégal ñu placer leen ci ñi nga xam ne du ñu am chance dugg foofu aussi moom day dem soldaalam wër réew yi réew yi nga xam ne dañuy lakk tubaab muy les pays francophones essayer leen placer foofu comme réew yi nga xam ne ñoo ñu wër. kon loo xam ne la lu lu lu am solo la bi ma xa génteeg moom ndax xam opportunité bi nekk ndaw doomu cees li ma njëkk xalaat mooy ñu ànd ñëw Thiès d'abord premier groupe bi au moins ñu jël jëlee ko cees mm-hmm. donc tey gis ngeen ni euh, xale yi fi dajee war nañu mat ñaari téeméer. Euh, ñoom ñëpp auditionné nañ leen ñoo ngi waaj a jël seen dossier léegi dinañu exploité loolu yëpp bu ñu demee et ci fan yi di ñëw incha allah ñi ci am chance u bokk ci formation bi dinañ leen euh, donc dugal ci formation bi. may préciser rek ne formation bi ñoom duñ ci fay dara. parce que état bi jël na ko en charge. à travers trois FPT. xale seen niveau wax nga ne la moom mooy li ñu xam ne moom lañ demande woon mais bu ñu seetee ñi nga xam ne jotaguñ leen gis daanaka ñëpp am nañ formation bu weesu ba. waaw ñoo xam ni ay techniciens supérieurs ñii bac plus deux ñii dem nañ ba am licence wala master. looy ñaax xale yi sénégalais de façon générale mais surtout Thiessois yi ndaw yi am seen euh, lijaasa rek toog seen kër yi. du ñu dem vers loolu mooy le gros gros problème parce que information dañuy dem wuti ko du la fekk sa biir kër nga toog du la bokk bu dee noonu nga koy xaaree li ngay xaar man nga cee bañ jot dañu war a jóg di dem ci vers l'information di ko wuti di dem ci structure yi di laajte ji gëstu bi ñu bi ñuy war di def tey te mu yomb lool ndax actuellement internet boo ci duggee. li nga bëgg seet boo ko seetee di nga ci xanaa li lay jaaxal sax mooy li nga ci am ci information boo war a traité waaye loo ci bëgg seet boo ci duggee di nga ko seet xale yi dañu deful loolu li ci ëpp fi mu nekk dañuy am diplôme dañu toog kër ga di xaar ndijaay wala mag wala keneen koo xam ne moo leen jàppale ci loolu alors que vraiment bu ñu jógaloon seen bopp sol seen dàll dem uti information bi dinañ xam ni opportunité yu baree baree bari am na yoo xam ne mën nañ ko exploiter ci koy wut liggéey mais am na aussi beneen aspect ya c'est extrêmement important loo xam ne la euh, moo gën sax dem di wuti euh, liggéey bu ñu lay fay par weer maanaam jóg dem wuti noo def yow ba li nga jàng ak sa xam-xam ñu regroupé wu former ay structure ay sociétés yu ndaw teg ko en place jéem a demal seen bopp loolu tamit structure yi leen di accompagner bari na mën nañ ci lim 3FPT pour formation mën nañ ci lim ADPME ñuy accompagner PME PMI yi mën nañ ci lim euh, la DRFJ pour le financement ak yeneen ak yeneen yu bëree bëri yoo xam ne état bi teg na ko te it ñoom rek lañ fi nekkal. Euh, euh, mën nga ñu rek ci lu kuréel gi nga yor muy contenu local yi. waaw contenu local euh, juróom benn weer yi ñu jot a def euh, ci ci deux mille vingt et mooy at mi weesu am na quand liggéey bu am solo buñ ci def ndax euh, ci semaine bi bi semaine bi jeex monsieur Ousmane Ndiaye bi nga xam ne mooy président au comité bi te dëkk Thiès dafa ñëwoon seet suñu alors ñu profité ci loolu nag présenté ko rapport d'activité bi nga xam ne ñi ngi koy doon élaborer ci biir rapport boobu rek am na ci ci jéego yu am solo yoo xam ne mën nañ ko feeñal maanaam bu dee wàllu Euh, xëyu ndaw yi ak wàllu sous-traitance su entreprise yi maanaam bokk bi entreprise sénégalaise yi war a bokk ci liggéeyu gëstu pétrole beeg gaz bi ba mën koo génne jariñoo ko ndax loolu mooy taxawaayu contenu local fexe ba Sénégal ay ndawam liggéey ci opération yi ay entreprise am liggéey ci opération yi ci biir loolu lu bu ñu xaymaa fin deux mille vingt et li nga xam ne am nañ ko ci chiffre yoo xam ne mën nañ ca teg baaraam euh, wàllu xëy yi am nañ trois mille huit cent soixante deux emplois waaw ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ci yoo xam ni ay employé la yu juddu ci ci liggéey ci opération yi. bu dee ci wàllu entreprise yi aussi lu toll ci ñaari téeméer ak ñaar fukki milliards eh, ci xa ci franc CFA dem na ci gafaka entreprise sénégalaise yi ci loolu it lu ñu mën a teg loxo te eh, yamul foofu parce que formation bi aussi am na lu ñu ci def lu am solo mais également li ñuy tuddee RSE c'est-à-dire que entreprise yi nga xam ne dëkkuñu fi. te ñu dalal leen ci suñu réew may leen occasion ñu toog fi liggéey fi gañe fi xaalis li ñuy gañe dafa loo xam ne dañ ci war di comp di ko delluwaat ci askan loolu ñu ngi ciy liggéey ak ñoom di ci wax ak ñoom saa su parce que li ma leen di wax mooy réew la ñu yoo xam ni lépp lañ war a def ñun weesoo guñu lenn quasiment ñi ngi tabax ay école ñi ngi tabax ay ay hôpitaux ñi ngi defar ay route yoo xam ni ñoom pays développé romb nañ loolu mais ñun dañoo soxla loolu ba tey comme may nañ leen ñu mën a ñëw fii di fi am dara dañ cee war di jël as as lëf di ko delloowaat ci askan wi.